jërë ngeen jëf uh, mbokk yi ma bëgg rek ñëw amaat ak yéen waxtaan indi timit ay leeral ak ay tontu parce que réew mi ma foog na ñun ñëpp ñoo ko bokk maa ngi wax fan yee weesu ne damay faral di dégg ne sénégal kenn mënu koo benn bopp la kenn mënu xar ñaar mana leen wax ji bu waree jub dañuy wax ne waruñu koo xar ñaar ndax mënees na ko xar juróomi wàll sax gis ngeen lama leen waxoon ci live bi ma defoon na leen ak ku mënta doon bu nekkee ne nit ku dëggu nga nit ku jub nga nit kuy tënku ci yoon Ousmane Sonko amul benn dossier buñ mën a yëkkati gàllankoor ko vous don donnez candidat ci élection présidentielle 2024. 2024 n'est qu'une élection présidentielle yo xamné yu am solo la ci taarixu réew mi président président de organiser élection te du ci lu baax la ci démocratie bu senegaal waaye tey dinaa taxaw ci ay ponk dama dégg bés bi sabi si fay saba si fay waaw juge boobu jël dogal ne génne gi ñu génne Ousmane Sonko ci list électorale yi fichier bi jaaduwul nañ ko ci delloo nu mu gën a gaawee ndaxte radiation boobu ñu ko teg fenn may dégg ba nit ñi di rafetlu dogal boobule ñu bari di wax ne waaw bu leen justice joxee dëgg ngeen ne la justice te respecté wu leen justice déedéet loolu amul du dëgg c'est pas vrai Respecter nañ justice bu baha baha baha baha baax jox ko orma ak cër bu mu yelloo ci réew mi ndax ku ma yàgg dégg damay wax ne mooy layu réewum Sénégal moo ñu ne bu justice mës ndax réew yu tàkk yépp justice moo nërmelu soo leen xoolee bu baax a baax a baax Yaoundé ca Côte d'Ivoire ñaari résultat la joxe fal na fi Laurent Gbagbo wëlbatiku falaat fi Alassane watara xool leen bu baax réew yu tàkk yépp justice bi moom matul lu mu doon ndaxte ñoom lañuy jox ñu yelloo di àtte bu réeroo amee waaye nag dañ na leen àtte boobule bëgg nañ mu tegu ci dëgg du am parparloo mu tegu ci li nga xam ne askan wi ñoo ci tënku muy sartu réew mi di ay texte di ay loi ñëpp d'accord ci ndax nag dund ñu dundiwunu bàyyi ma duñ ay bàyyi ma dañoo organiser suñu société am nu mu tënkee am nu muy doxee ñu ne ñëpp d'accord nañ ci nii lañ war a doxee ku teggi yoon bi teg nañ kuréel bu wax justice moo la ci war a teg ci yoon justice duñ ay robot ay nit lañ bu nekkee ne alxuraan mu sell la ñuy gis ñu kiy wax mu am ay interprétation ku nekk di xool noo ko jàngatee aaya yi ku nekk di wax ba nit ñi di wax na juróom-ñaar interprétation mën na am yu ma gën a sutub njàng mën nañ ko leeral moo xaltumaak une décision de justice institution judiciaire wax naa leen fii du ay miir du clim du ascenseur ay nit ñoo fa toog di dogal ñu mën a juum de bonne foi ñu nangul leen ko ñu mën a topp bëgg-bëgg ñi yor doole ji ñu teg ci sunu bët ñu mën a jalgati taxi parce que bindu nit la nit mo matul lo yep ñu mën ko def justice buy wax day am layo avocat sol rob di def di wax kon da ngay ni d'accord ne man nañu am gis-gis ci ay décision de justice yo xam dogal nañ ko fii ci réew mi ñépp xam ne xel tey na ba wàccu justice tax d'accord na ci loolu ndaxte dafa am àtte bu njëkk première instance boo d'accordul ak lu juge bi àtte nga dem cour d'appel boo d'accordul mën naa dem ba cour suprême mën nañ attewaat di attewaat mbir mi di attewaat mbir mi di attewaat mbir mi kon kay bu nekkoon ne dañoo war a tënku rek ci lu juge wax kon juge boobu ci biir kuréelam du wax nañu àtte boo d'accordul nga dem ci beneen juge mu àttewaat la loolu buñ ci d'accord rek ñu d'accord ci mooy première instance juge bi mën naa jub ñaata yoon la jël décision justice juge jël ko mu dem même morom jugeum am décision décision boobule mais lu doy war moy buñu démé ci réew mi tollu ci fo xamné bu juge waxé lo xamné mo moo deug méngook yoon méngook lu xel mën a nangu juge boobu sénégalais yi jàpp ko mu doon élew seen kanam ci diggante ñaari ayubés rek am nañ ci ñaari exemple soxna Marème ma nekk cour suprême procureur boobu nga xam ne robbam jot na baax mu teewal fa askan wi yëkkati kàddu na man maa teewal société bi fii waan lii avocat Ousmane Sonko yi di wax loolu mooy dëgg teg ko fu leer bi ci topp ban la saba fay te duñ na guléet ci saba si fay ndax demam à l'intérieur du pays daanaka sanction la ndax ci procès Abdoul mbay mom mo relaxé won purement et simplement Abdoul mbay ñu méré won ko ci torop waye gis nga li yalla di def waye buñu démé ba bu décision jibee juge jël ko juge boobu yëpp askan wi yëpp sar xolle kontaan kon juge bu nekk boo tëjoo sa biir nekk war ngaa réfléchir bu baax a baax a baax a baax ne ban woy laa bëgg bàyyil sama bopp ban woy laa bëgg a bàyyil sama njaboot ban woy laa bëgg a bàyyil sama doom ban woy laa bëgg a bàyyil sama soxna te woy woowu nag du lenn lu dul li askan wi di laaj du dara lu dul wax dëgg te yàlla tax àtte dëgg te yàlla tax teg ko ne da man damay dee dekki li may àtte nii dama koy àttewaat dama wax laata procès Ousmane Sonko ne soxlawul jàng droit déedéet Bo amé logique am cohérence rek mëna def raisonnement intellectuel bu jub génné gi génné Ousmane Sonko ci liste fichier bi fenn te dara du ci la preuve amuñu fit sax notifié ko ñu ne xamuñu fu mu nekk te Ousmane ko mu ngi seeni loxo ñu koy garder waaye état bi nee na xamul fu mu nekk nangul nañ leen ko xamuñu fu mu nekk garaawul nangul nañ leen ko moo ne état bee ko jël na ko coppet këram jamono yii ma nga service réanimation bu hôpital principal ñu jël way takk der yëpp nekk hôpital bi mais état bi nee na xamul fu mu nekk d'accord xamu leen fu mu nekk duñ ci nekk di taxaw di wax ba mar lu tey suñu xel tamit jur tiitaange ci askan bi ñaata juge ñoo nekk ci Sénégal lim bi bari na trop xel mën a tey lu tax ñuy gis benn juge saa bu ñu tuddee dossier Ousmane Sonko juge boobu ñëw toog siège day dem ba xuloog sax yenn moroomu juge ci bëgg ñu condamné Ousmane Sonko am na fi walla amu fi toog nañ fii ci dossier Ousmane Sonko ñu dem jël benn nit boo xam ne frère ministre la d'urgence pour compléter jury bi war a àtte Ousmane Sonko loolu yëpp am na fii daf fi am Ousmane wax na ko ci ay laayfam teg nañ ci suñu bët l'histoire retiendra également xel di jariñ lu dul xalaat ñu dégg gis du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ministre di wax ci dossier ay waxam di waroo lundi mu wax la li mardi mu wax la leneen mercredi mu waxaat la leneen jeudi mu waxaat la leneen ba doo ci xam boo ci jàpp benn weer xeetu wax bu ne ministre bi dina la ko wax am na fi walla amu fi bindal leen ma am na fi contumace interprété wuñ ko lu leen neex jógaat waxaat leneen am na fi walla amu fi moo tax bu nit ñi di wax ne waay la justice pour yéen bu baaxee rek parce que daf leen jox résultat bu positif déedéet dañ toog di jàngat lépp di xool xipp suñu bët dofuñu juge magistrat lépp jàng rek la jàng la parce que timit nag ñun bu ñu xamul timit yàgg naa leen wax fii na leen sama xaritu magistrat bi nee na ma interprété na ma jox ma article bi tel tel tel tel bëri nañ lool ay magistrat yu nekk ci système bi boo xamee ne bu dara wadde dañ leen ciy laaj ñu wax ñu ne bu ñuy àtte dëgg lii moo jaadu mais doyul waar ñu dem ba nga xam ne bu ñuy xool procès Ousmane Sonko dañuy seet magistra magistrat guerrier magistrat guerrier la set, seet non c'est magistrat bo am xam-xam bu wara mëna tok ñu wax dëgg te yalla tax lool lañu wara war wër mais c'est une magistrat guerrier xoolal saba si fay lu mu dund lu mu dund ci procès bi sabotage bu ne def nañ ko ci biir procès bi waxuma ko maître Clédor Ciré Ly moo ko wax ci communiqué des avocats dem nañ bu ci guddi gi sax ñu fay courant bi ñu ne coupure d'électricité mu téye ngorom ak lampe torcham bind buñ ci demee ba agent judiciaire de l'État du sukkandiku ci tuit te ñoom ñoo ñu yàgg a wax ne oui réseaux sociaux on raconte du n'importe quoi mu suis ci tweet di suis oui juge bi de parce que frère a adjoint Ousmane Sonko la waaw boo waxee loolu ñu le cour suprême Que jël dogal ba frère am secrétaire général ministère de la justice mais je nga bokk nit téwul nga def sa ngëm-ngëm até xol sa digënté ak sa borom loolu amul benn relation kon il faut ñu bàyyi di wax ne wéy bo leen remercier justice rek c'est parce que justice bi daf leen favorable mais day teey xel bu décision de justice génné yow pour nga expliquer ko sax da ngay def ay contorsion intellectuelle manam di nga liar lu ne lu ne ding ci dugg dal pour jema fexé mu dugg ci bop nit ñi lu ne ding ko wax pour mu fexé mu jema dugg ci bop nit ñi deug dama amone sama ben goor gu bax bu mako don wax bo tamé ak ñeme wax dëgg do ruus ma ko lutax tax mu ma boo waxee dëgg fii ak cinq ans booy nettaliwaat même chose bi du changer mais bo inventé comme da nga inventé won rek <laughs> fi ak buñ la waxé 5 ans amna yoy faté fàtte nan la xel mën japp ci dossier Adji Sarr par exemple ñu enquête nit ci viol menace de mort yéen ñuy wax nañ viole menace de mort instruction plainte bi loolu la Adji Sarr instruction Maham Diallo loolu la ordonnancement de renvoi pour jugement loolu la ma xam bindal Ousmane Sonko poursuivre ko pour viol menace de mort ñu ñëw ba ci bérébu àttekaay bi cëpp na lay procureur bi di wax ba mu ñàkk a gëm menace ak viol de mort yi ne leen juge bi waaw léegi menace et viol de mort lañ koy toppee mais garaawul boo ci amul firnde. nga seet leneen est-ce que loolu jaadu na xel mën na ko nangu boo naafequl di nga toog na mais est-ce que c'est possible boo toogee ñoom bu lëggee c'est une requalification des faits c'est possible waaw booy requalifier de faits waa Adji Sarr mu toppee woon Ousmane Sonko xanaa di nga toog ngeen nañ ko atoat na ko lii c'est pas sur le temps nga koy defee bokk loolu la ma ay magistrat wax munoo tëb na lay ne diw lii lañ koy toppee mu ñëw ba foofu ñu ne bàyyi na loolu yëpp parce que nag ñoo nekk si juridiction boo xam ne dafa leer nañ lu tax lan moo waral yëkkatee dossier mu jëm ci Ousmane Sonko ci wàllu yoon seeni nit namm disos, xalima fu mu gën a ñaawee ñu bind di sos seeni nit gàdd takk rajo yi fu mu gën a ñu bind bis ba di ngeen gis lu lu musul gis vidéo yi maa ci teg sama bët patati patata fenn ba sànq ba tey vidéo génnul dañuy def écran géant projeté ko xam nga loolu yëpp damay fàttali rek fii lañu fekk ñun ah fii lañu fekk ñun ca booba fii laa toog mën na leen dossier bii viol amu ci menace de amu ci Macky Sall xam na ko xam na ko ñun ñëpp xam nañ ko waaw pourtant justice boobu am na dogal bu mu jël de yéen ñi wax ne dañoo war a respecté justice taxaw leen ngeen toog ngeen wax ñu est-ce que loolu jaadu na walla jaaduwul en toute sincérité nag ñu dem ci ba askan bi léegi ragal justice am on rend la justice au nom du peuple la wax ñu dem ci ba askan bi mo ragal léegi justice am da ngay am sa deug mu leer na li deug gu la ñu dem ñu lay ateng nga tiit xam nga c'est grave comme nu mu grawee juge bu rendre décision gaay jël ko Tata ko lutax parce que les sénégalais dañu am sentiment perception la la justice est très méchante envers le peuple lutax Nous, da nga ñu tok ñi lay wax appel à l'insurrection da nga force occulte force obscure commando yéen ñi yor réew mi yàlla jox leen ko ngeen dagaan baatu askan wi sonn ci trop ba yàlla jox leen ko ñun ñu jox leen ko ñoo leen gën a bëgg réew mi fuuf te gëm nañ tamit alal du faj dee gàcce rekk lay faj te dara jaru ko fi lépp ci nettali lay mujj ndax ji yu njëkk ya lañ doon def lu baax moo topp seeni doom ñu leen koy nettali ba tey mais le sentiment des Sénégalais mooy la justice est devenue méchante xoolal ñaata xale la ñu yàq seen àddina fi mu nekk nii moom beaucoup d'arbitraire parce que man su ma koy wax J'en parle avec un pincement au cœur. Parce que vous sentir cette méchanceté gratuite. Des arrestations, vous savez, le juge, vous avez mandat de dépôt, mom ne demee ba toog du xam lu tax décision jël décision le mandat de dépôt non Vous ne xool ne la non waruma la def mandat de dépôt mais comme nga rek état il faut que donner le mandat de dépôt xalé yo xamné page facebook nga jël do prison yi fess del amok ku nek sa bop nga wara mëna ñëk wax mais bo duggé ci biir kasso bi ba yalla may la nga tok di waxtaan ak xalé ñu lay netali sa yaram day daw ndax nak place nit bu ci njëkk du kaso te cette méchanceté dafa dem ba nekk une méchanceté gratuite waa booy bi dañ ko yar loolu la ñuy wax quoi la ma daan wax sama avocat yi bale paase ma ne leen ah ñu ma yox kii ma ne leen jël nañu ordinateur lu ma wàññi buñ bëggee sax ma may leen ko jël nañ table luñ ma wàññi bu bëggee ma may leen ko dama leen di jox sew sewaan yooyu téye nañ passeport lu ma wàññi dara ak leneen ak leneen ak dara la la wàññiwul au contraire sax dañuy téye sa ordinateur sénégalais yi jëndal la ordinateur bu bees ñu téye sa tablette ñu jënd tablette bu bees ñu téye sa téléphone jënd téléphone bu bees jox la na la téyel sa ngor rek continuer tu te poses des questions, quoi. Tellement banal. Et quand les gens sont devenus 8 mois, 9 mois qui birent Kassobi. Amana, si vous avez des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et ce que je vous dis, c'est que vous avez des gens sont ont fait des duñ xam sax luñ leen jàppee pourquoi moo tax le peuple sénégalais a peur de sa justice ñaata famille ñooy sëngeem di jooy fi mu nekk nii demal jour de visite prison yi ñaata rongoñ mooy dal ci ko dina ci ay xale yoo xam ne ay bruti la lañ jàppe ay xale yu am 18 ans ngeen wax ne ñii dañ leen bëgg a daaneel nguur <laughs> mais xam na lan muy nguur xam nan lan mooy suñu force de défense et de sécurité yu taxaw rek pour protéger la république camion cocktail molotov sax yëngalul Sénégal nous moom benn méchanceté gratuite da leen yar ces gosses on va les corriger mais yàlla bu nammee def lim bëgg kenn munu ci dara loolu boo ko xamee dangay ngay noppalu détruire des vies maa ngi waxtaan ak bële passé sama jigéen ci maxu Mandela bi ñu mu nekkoon huit mois de grossesse yàlla may na ko mu mucc ba tey jii day dund lii nga xam ne moo lañ ko tegoon bu mu que une sorte de dépression et tu es suivi par un psychologue comme je le suis en ce moment suivi par deux d'ailleurs parce que après da ngay bëgg a expliquer comme on est trop cartésien da nga koy jéem a expliquer yow comment est-ce possible Dans le Sénégal mën a tolloo ci dimension bii nan lañu mën a defee lii est-ce que pays de droit pays bu normal lii war na fi mën a am lan moo tax diaspora bi ma leen di gërëm di leen sant di leen remercier au passage diaspora bi di xataraayu luñ mën muy neige muy tàng muy taw ñu taxaw jël seen alal di ko ci def parce que dañoo dëkk nekk ci dëkk yu normal yoo xam ne dañoo gis yoon diaspora bi rey bi métti leen trop sans suite dëkk yu nekk ba muus nekkee ci kaw garab sax am ay jafe-jafe sapeur pompier yu ñëw procureur des fois mu ñëw xaj bu mu fa fiir wala kii maltraitance des animaux ñun wax maltraitance des animaux foofu sax day doon problème ñun fille maltraitance humaine ay nit ñu leen lolé ni loolu mooy métti diaspora bi te fajul dara xam nga ma dara yenn mbir yu sew yi def bi may jox rek Ousmane Sonko bañ mu dem bi passeport mars 2021 teewul diaspora ba ngi votel toujours l'opposition ah, qui na gagne jamais là-bas yenn parti lay gagner rek surtout en Afrique peut-être et rarement dans quelques trucs dans le reste du monde où l'efficacité on a du respect pour nos juges hein. parce que ñu ay xarit ay wëllëre yo xamné dañuy waxtaan ak ñom duñu ñu toog heures wala 48 heures yo xamné waxu ñok ñom ñoom waxtaan yu ñoom sax des fois mu am lu leen di métti ndax dañoo choisir exercer métier boobule te askan bi yaakaar lool ci justice bi parce que soo lu fi lu fi xew justice da koy àtte conflit boo fi gis justice moo koy àtte kon ngalawaay ngalawaay ngalawaay yërëm leen. sénégalais yi yërëm leen sénégalais yi bu baax a baax ndax nag le Sénégal ñun duñ ay population bu violente on n'est pas un peuple violent non ñun xamuñu ko li ñuy wax ni di ko dugal suñu bopp xamuñu ko xamu bëgg dañu bëgg ay élection yu libre transparente inclusive ñu war beaucoup, bokk ñëpp bokk ñu def campagne neex parce que nag lu coow li di le dernier mot revient au peuple sénégalais le dernier mot <laughs> revient au peuple sénégalais nganda ngandalu bi boo faloo ba la de da yéen a ngi ni di jël fiche pare naa di darti darti di dem ci askanu senegal dimbale ma pare parrainé ma boo leen boo leen jàllee darti darti dimbale ma voté ma kenn du fa làkk tubaab ay wolof ngeen di wax leer nañ sénégalais yi di leen dégg waaw population boobu yellawul ñu respecté leen weg leen jox leen cër voilà yellawul loolu jox leen cër. mais amna lu sénégalais yi mérité quand même mais la ma daan wax lay wat di wax rek modé bila bi ma fi def senghor abdou diouf abdoulaye ñom ñet ñep bo len bo le man sama fukki at ak ñaari lama fi def kenn defu fi tan na sama mbeur mom moko wara continuité muy kan amadou mo seen continuité moy wayal wayal li nga xamne mom la fi def koo ko defal sénégalais yi sénégalais yaa ngi xippi seen bët di xool ngor ca dëgg-dëgg kon mooy du ma tiit du ma ragal ndax sama mbër ñu ma samp bu toogee rek yëkkati làmmiñ na maa fi def lii maa ñun ñoo fi def lii def lii def lii def lii def lii te boo leen ma joxee ma continuer day mel Macky Sall moo am troisième mandat ma continuer liggéey bi mu fi baye parce que loolu ñu seen candidat wax nee na candidat continuité la mais ñukoy ñaan rek continuer ci bu mu doon bokku ray bi loolu mom day dak ñukoy ñaan timit na continuité bi bu mu doon tëjum kasso bi loolu day dak loolu yëpp bilan bi la ñu koy ñaan timit ne continuité bi mu doon bloqué ay dossier corps de contrôle <laughs> parce que loolu lépp ci bilan bi la bokk kon waay waay li sénégalais yi bëgg dafa yomb sénégalais yi xulóowuñ de kenn xeexul kenn wàccul ci mbad mbedd mi di wax ne yaa ngi def li wala kenn wàccul fenn kenn demul fenn xam lu ñu bëgg jël suñuy carte ñu organiser élection yu libre yu transparente inclusive loolu rek Macky Sall moom nga ñu desel Sénégal li nga soxla yépp jox na la ko fu teraa nga am Sénégal yëkkati na la ko jox la ko président Macky Sall yàgg sa njaboot ngeen gundaandaat baddaxal ma daa fukki at ak ñaar laatu loolu daanaka sax ëpp na ko parce que 2000 ba léegi wala 2001 bu la neexee ba léegi yaa ngi ci nguur nguur Abdoulaye Wade excepté 2008 ak ba 2012 sa taxaw loolu nga ndóol parce que ba nga ñëwee di toog dañuy wax li nga xam ne moo di sa patrimoine nee nga xaw ma am nga 7 wala 8 milliards kon donte génnoon nga ci nguur. man japp naa ne yaa wan ba daax ma daa parce que am nga patrimoine huit milliards boo mën a teg sénégalais yi sénégalais yi wàccoo na nag yow askanu sénégal wàccoo na nag yow ba mu jeex takk te boo wàccee président ñu continuer di la jox ay privilèges yi nga xam ne moom nga yelloo waay waay toogal tuuti nga ne kat juróomi yi des xaw ma lan moo fi amoon te président dañ la nax ñi la doon dugal ci lii yëpp dañ la nax parce que nag jàppal na sénégalais yi neen fajal seen bopp seen problème de c'est clair comme yow ba la jëlee ca assemblée nationale nga jóg di xeex sénégalais yi xeex la la sénégalais boo gis muy dox. amna revanche personnelle bi mu wara jël contre le système ba fi nekk fukki at ak ñaar tej nañ xaritam rey nañ doomam toroxal nañ ko sénégalais nag boo gis am revanche personnelle boo xam ne mi ngi ko téye dank fanaanal ko na pat ñu yor kaaraange muy gendarmerie ak police nañ dalal seen xel sénégalais yi yéen lay wax ak bu kenn taal bu kenn xeex parce que dañoo nekk ci xeexu xel loolu yépp du ci am li jaadu kay mooy léegi. ma tay gi day continuer ba tay parce que provoquer xeex wala dara pour un prétexte reporter ay élection soxlawuñ ko ndax duñ son duñ bëgg noppal te nee naa fii ak élection présidentielle yi jarul génn Sénégal fii la ñuy toog parce que yu bëri dañ ko war a leeral sénégalais yi ñu xam ko

Sonko du Bok, c'est une réponse qui est idiote xam nga lutax tax mais Sonko du Bok bu nekkee ne dañoo teg lépp ci yoon génnal ñu lu tax warul bokk wax mënoo ma wax ne Sonko du Bok muy une réponse idiote nga teg ko si lan si sa naaféq ci njuuj njaaj ci salfaañe ay droit am bu gàccee di am kay yow yaa war am gàcce mais ki taxaw na la ah man de li ma gis mu am bu lépp jaaree yoon tegu ci dëgg rek ñuy àtte dëgg te yàlla tax ci lépp li nga xam ne moo ñu tënk ñun comme ay doomu aadama yuy dund fii ci réew mi Sonko daa war a bokk ci élection yi parce que lolu akam ak yelleefam la yow nga tok bêtement de wax na ma du bok parce que ma gis ay nit yo xamne ba juju sabasi fay jele décision bi ne sam xamna san xol yi di dagg léegi dem nani ni ndox mu jàpp ñu xamne way yeena ngi tëb di dal ni wante ko du bok wa d'accord son ko du bok mais soo nekkee naafiq dëgg ñoru la Sonko du bokk am wax d'accord mais léegi da ngay toog ne bon Sonko du bokk parce que ça et ça et mais Sonko du bokk parce que sa mbañeel gi nga yor ci Sonko moo tax nga ne Sonko du bokk xam nga kooku yow waxoo waxu waxu dëgg naa féq nga waxoo waxu yoon naa féq nga mais xam nga la la ñuy wax buñ tegalee sénégalais yi sénégalais yi kenn dofu fi nag te Sonko moomuñu moomuñu juruñu jënduñu ay intellectuel rek a nekk fii Sénégal ñi ñu xam bu baax intellectuel sax dama koy seppi teg fële parce que xam na tax ma wax la loolu man li ma gën a gëm léegi ku am xam-xam ba pare jub te damay gis ci TikTok yeeg yooyu ay xale yoo xam ne ñu ngi ñor xom du ñu jàngal ci lu baree bari ci seen xam-xam te bàkkoowuñ intellectuel loo leen lal ñu lalli lu keneen lal ñu lalli di vaar ñépp ku wax xam nañ sa jikko sa xol nu mel ku wax feeñ la ñuy wax Sonko du bokk ma na waaw mën na la waa d'accord léegi explique-moi pourquoi non warul bokk non dañ ne sa wax sonko du bok bobu dal yang ko tek yow ci bagn gi nga bagn ousmane sonko ragal gi nga ragal ousmane sonko parce que da nga ne he ki bu bokkee daf may wala man ma ngi faral kenen sonko warul bok do tax ma tuddé ko seigne réponse idiot man dang may wax na ma sonko du bok ba paré na ma ah pap ale lii ak lii ak lii ak lii yoon bi loi bi texte bi article bi moo tere usman Sonko mu bokk ndax lii ak lii ma liir xool xam mais lu tax ñu ne Sonko dafa war a bokk ci élection yi dañ ne dañu wanul ñun tey jii lu ko mën a gàllankoor du bokk lenn moo ko mën a gàllankoor du bokk mooy nguur gi ne maa tey lu ma neex laay def damay salfaañe lépp dëggaate lépp nappaaje lépp man nañ ko def nag ci réew mi xam nga lu tax ndax benn kilifa waxatul te nag mu mel ni ñàkk bokk sonko bi du rek dafa arrangé ay politiciens arrangé na ay homme d'affaires am arrangé na ay kilifa arrangé na ñu bare bari kon di bind ngay gis kenn ko la ah Sonko du bokk mën na leen et après la vie continue Abdoulaye Wade cinq fois la nekk candidat doo ko doon président de la République Sénégal waxuma ko pour dire ne Sonko warul bokk déedéet Sonko man li ma gëm Pape Alé Niang moo di Sonko dafa war a bokk ci élection présidentielle 2024, xam nga lu tax parce que dañ ma wanagul. lu ko wara a téré a ci élection présidentielle 2024 mu téggu ci kaw deug lepp lu may wax ci sonko moy ragal ne bu mili midi élection yi jeex man dama faral kenen wala ki bu ñëwé fi njuuj njaaj yi nga xamné def nañ ko fi yépp lepp lay ci kaw table bi wala Macky Sall ragalé ko xal Macky dalal sa xel Ousmane Sonko bu jëloon nguur gi yow sa jabar ak sa dom dara du fenn top président yombul waxuma ko nag pour timit ne duñ def reddition des comptes ak ñu koy def loolu rek la sénégalais yàkkamti te day am kon jox Sonko du bokk teg ko ci sag naafiq ci sag mbañeel gi nga bañ Sonko ak ci jubadi gi nga nekkee mais loolu man mënumaa convaincre man mi gëm ne gisuma lenn jàng naa xam gisuma lenn lu war a mën a très bokk Ousmane Sonko ku ko xam toog leen ngeen débattre ngeen génne texte yeeg article yeeg yépp bi ci mujj juge bi wax na leen ko saba si fay lu ne sosal nañ ko ko Ousmane Sonko man sax dama def na cuuraayu dëmm la quoi cuuraayu dëmm la Ousmane waaw Ousmane cuuraayu dëmm la te fu mu romb foog dëmm ti show walla wax ba jëfuur mënul ñàkk te li ma ci neex nag patt lay def du ci tontu kenn ñoo koy ñoom ñooy xadaraay di wax <laughs> des fois des fois des fois daf ma ko doon wax sax loolu sax qualité boobu jëlee naa ko ci loolu wax mu ne ma chee Paco bàyyi xuloo dañ lay tardel rek defal doxalal rek bàyyi xuloo lay tardel parce naa toog ak moom benn jour ñi waxtan ndeysaan Ousmane mu ne ma xaw ma lan lan wax mu ma ah lol nak dama koy app mu ma ah amna dal lo loo dal vraiment xol motax dama lay dama wax rek ñi fogg le Ousmane mi ngi xol réseaux sociaux dañuy joom de joom nañ de yeen ci bind yepp perte temps la te méthode bu efficace la nit dara ñëw di wax na la way yow dama la mere ma ne ko ah bon yow yaay kan man xaw ma la mer gi yëguma ko sax nopp bu bon bi laa joxe loolu fulla réew mi moo toll foofu réew mi moo laaj fulla googu wala nga gis ko envoyé message kilométrique wax ba pare ma ne ko d'accord merci xuloo ñaara koy def te des fois ci seen système ñoom bu ñuy utiliser dañuy bëgg ngay dàggasante di tontu bàyyi l'essentiel bii may wax nii nga xam ne njariñu ñu bari la mais ngay tontu yaa kook dong la concerné bon y a des Sénégalais qui aiment ça mais nit tolluwaay la te boo ci nekkee waroo wàcc Macky Sall 2008 ba 2012 lépp lu luñ ko mës a wax maa ngi fàttaliku Idrissa Seck attaqué woon na ko si 7 milliards de Taïwan yi ba tey ji déggoo mu yëy ci yàbbi loolu tamit stratégie la woon patt rek lay def moom luñ ko mës a waxal patt lay def Sénégalais yi ne dafa yaru fekk mi ñu doon yeeru bo vivre nak ay événement yooyu ak histoire yu mel noonu da ngay dem nak yow timit ba jël ci ay leçons di wax parce que amna ñu nek mission commandée mais yow bu la xolé bo xolé sa aqulaay taala sénégalais yi mën sétlu ni nit ki kat kàddum wërna ndax nak boo demee ba toog boo waxee nit ñi jël li nga wax dugal ko ñu jël sa titre walla sa photo pour mën a def buzz pour nit ñi mën a cliquer seen vue liggéeyu ndey la doy na sant yàlla kon sénégalais yi ma leen di wax rekk fi mu nekk nii njaabal ndànk rek ba février incha allah mais sonko du bokk moom bo nekkul naa fekk xol bu bon bañ sonko ragal ko parce que sonko nag boo jubadee doo ko bëgg de fu nga jub boo jubadee noo ko bëgg c'est pas possible fu nga bëgg soo koy wax nag ñoo ne waaye dafa faral sonko mais su ma gisee ñeneen ñëpp dama leen di seedal ndax xam naa xam naa Abdourahmane Diouf Déthié Fall Tahirou Sarr ah ba ci Thierno Alassane Sall ak ñu baree baree bari ñu ma xam grand Mamadou Lamine Diallo xamal naa leen ay valeur ah ñi ma ci miin laa wax kon kon gars yi li laa leen bëggoon dénk indi ay leeral rek yu tuuti yu gàtt incha allah di leen dig daje ci beneen waxtaan seen chaîne YouTube Dakar Matin jërë ngeen jëf.